vous ai euh, lors de la conférence de presse euh, de Yewwi Askan Wi une conférence de presse d'ailleurs très attendue euh, ñu doon xool lan mooy nekk seen position gannaaw épisode bu malheureux bi nga xam ne am na fi semaine dernière propos aigre doux euh, entre deux membres éminents de la coalition euh, mu di euh, Barthélémy Diaz ak Ousmane Sonko euh, Ousmane Sonko moo njëkk a génn en cause euh, mettre en cause la volonté de Khalifa Sall de Barthélémy Diaz de nouer un dialogue avec ki nga xam ne moom mooy Macky Sall yow Euh, PUR aussi beneen force politique la euh, bu nekk ci biir euh, coalition bi nan ngeen gisee situation boobu. Euh, man je du ma commenter euh, l'échange entre Ousmane ak Barthélémy. C'est un échange qui peut être fatal à la coalition. Hein? Ah pas du tout. Mm. ak Barthélémy xamante nañ ce sont des amis. su fekkoon ne Khalifa Sall moo wax am attitude bi Barthélemy Diaz am la la conférence des leaders dana ci addu mais au niveau de la coalition Yewwi Askan Wi conférence des leaders moom mën nañ ne moom mooy jiite mooy instance bi nga xam ne nii fa la ñuy dajee di waxtaan te instance boobu ay leaders ñoo représenté seeni organisation taxawu Khalifa Sall moo ko représenté Barthélemy c'est pas Barthélemy qui représente taxawu au niveau de la conférence des donc li muy wax pour ñun c'est entre moom ak Ousmane donte nekk na loo xam ne ni mënuñ ko rafetlu waaye euh, man personnellement duma ci def commentaire hier on a été en réunion avec euh, au niveau de la conférence des avant ñuy def euh, le point de presse on a échangé euh, donc euh, non ci Yewwi Askan Wi ça je vous je vous je vous je vous dis. l'impression qui s'est dégagée c'est que euh, la coalition a décidé de de de faire la politique de de, de l'autruche euh, def comme si de rien n'était alors que le malaise est patent parce que bu fekkee ne l'échange concerne Barthélemy et Ousmane Sonko Barthélemy n'est pas n'est pas n'est pas leader mais dans les propos de Barthélemy on pressent une bénédiction boo xam ne xalifa Sall apporté na ko tout ce que Barthélemy a posé comme comme comme comme acte et xalifa Sall lui-même euh, dans un entretien avec euh, Pape Alé Niang lui-même a dit que dina dem dialogue moom li ko intéressé mooy mu bokk ci li nga xam ne moom mooy présidentiel bi te ci seen chart bi da ngeen dafa am euh, chapitre boo xam ne euh, le chapitre D da ngeen ne euh, aucun membre de la coalition ne doit se rendre coupable de compromis ou de compromission avec euh, avec Macky Sall te da ngeen bind avec Macky Sall euh, Aïda Mbodj démb def na une conférence de presse pour dire que ñoom yëguñu yëgaluñ leen euh, te seen yoon nekku si est-ce qu'il n'y a pas quelque part une rupture euh, du, du, du, du, pacte de, de confiance. Est-ce que Yen Wa Pur, est-ce que vous êtes à l'aise aujourd'hui avec tous ces actes-là qui ont été posés oui. sans mhm. que vous ne, sans que vous n'ayez été euh, impliqué Parce que la affaire ça se passe entre Ousmane Sonko, Khalifa Sall et Barthélémy Diaz. Non, absolument pas. Nous, on n'a aucunement été impacté. Et même la coalition n'est pas impactée. Euh, Soxna Aïda Mbodj li mu wax loolu moo am c'est qu'en fait la coalition Yewwi Askan Wi yëgul la coalition Yewwi Askan Wi mandaté wul kenn donc en aucun cas Yewwi Askan Wi yoonam newu ci pour pour vous dire et donc euh, Barthélémy waxtaan ak Ousmane c'est entre eux c'est des amis que Barthélémy wax ak Khalifa c'est son leader c'est tout naturel euh, suñu waxtaanee ñoom euh, c'est pas parce que ñoom ñett waxtaan nañ que s'engage la coalition